foofu ngeen non, au Sénégal daan fi dugg pour tas nu boole nu ñuy reyante suñu biir ñëw jël suñu pétrole des suñu gaz yoobu dem seen yoon comme nous ñu ko defee Libye comme ni ñu ko defee Irak te képp kuy jéggi benn jéego war na bàyyi xel le Sénégal de 2012 ak yooyu c'est pas le Sénégal d'aujourd'hui il y a la convoitise il y a d'autres enjeux qui sont extrêmement importants et que nous avons maintenant les moyens de notre développement te il faut qu'on se batte ñun de dem nañu ba pare génération perdue bi yéen ñii cette bataille là c'est une bataille Si mm-hmm. su ngeen toogee fii français yi day ñëw France bi man bëgguma bàkkaar mais man wóor na ma ni Sénat kii début début français yee ko éliminé fait que ni mënutul mënutoo leen jëriñu éliminé. Mm-hmm. daal compliqué ba nga dem. Il existe des défauts pour la France depuis 30 ans une de des problèmes d'enjeux géopolitiques parce que le problème c'est quoi c'est le problème de la présence de la Russie en Centrafrique au Tchad et au Mali la France est en voie d'être expulsée de son précaré politique bon gens a essayé de manipuler depuis Déby euh, éliminé de sorte que Eh, di ñaanlu nag parce que ñun ñaanlu ñu ñaan